ci période waajtaay màggal gi njaayuma xasaayid doon na activité bi dox bu baax. clients yi non waaw clients yi moom ci màgg gi leen di gën a kii. yu nag ay commande la ñuy faral def ay xasida yoo xam da koy boole ba mu nekk xasida yu bari comme nii may def nii dool. waaw ay commande lay faral di doon nga xam da ciy boole xasida yu bëree bëree bëri yooyu la ñuy gën Euh, wut si màggal gi. maam Thierno di ci yangu di ñëwaat rek ci xasaayid yi gën a wecceekoo. bari na de parce que boo xoolee si ndiidi tuxfatu malam sifaay jaawartu mawaahibu wakkaana xaqan yooyu moom ak jaalibul maraaxib yooyu ñoom ñi gën a wecceeku yooyu bokk na ji ñi gën a wecceeku. donte sax nekk na mbir mu dox fi mu nekk ni waaye taxul njog yi cher. non moom du yokk moom du yokk du wàññeeku benn prix bi rek. benn xasaayid yi nekk li nga xamante ni lu murid yi di yitteeloo bu baax rawatina ci période màggal gi ñu nekk bu ñu sukkandikoo ci maam Thierno xasaayid yi gën a dox rek mooy fi ñuy taggee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak itamit xasaayid ñaan yi.